hello guys, on va parler de Nicolas Jackson bi nga titulaire en équipe du Sénégal jox ko contre le contre Gabon ça s'est mal passé mais c'est compliqué C'est quoi le problème selon vous est le problème en équipe du Sénégal à propos d'un club parce qu'un club franchement même match yi ne trop si match bi occasion en équipe du Sénégal rien ne se passe. C'est compliqué man def naa ak interview bu Yatou. mu xamal ma positionnement c'est très important bon du côté de Villarreal c'était presque dañ ko doon bàyyi mu libre euh, ci kaw propos technique bi possession euh, possession bi dañu Il tikataka ak un noonu jeu bi fa du côté de Angleterre wax na day il a marqué 12 buts. j'ai ta mais en équipe nationale du Sénégal c'est toujours compliqué en coupe du monde technique nañ sur les côtés C'était compliqué euh, match yi mu a coupe d'Afrique Afrique am na yu nañ contre Niger amical non Demain. demee ñu tegaat ko quoi le problème man pour man ba tey jusqu'à présent dama gëm ne mooy suñu attaquant xaw ma nag ndax dama juum selon vous yéen da ngeen gis ne man dama juum wala juum pour man Nicolas Jackson moo war a nekk suñu attaquant ba tey jii man loolu laa gëm parce que si am dara parce que Aliou fii la doon teg Mbaye Niang Coupe d'Afrique ba ma jeex dugal benn but mais gisoon na ne sur le terrain am na leen lu mu ko doon apporté donc continuer à mettre Nicolas Jackson parce dañu nekk jamono bi si beneen génération beneen cycle beneen euh, génération boo xamante ne mooy ñoom min Mikel Ngor Faye mi ngeen gis noonu ñoom Pape Matar ñoom Pape Nicolas Jackson fa laa ko boole selon vous dama juum wala juumu dafa war a continuer du titulaire ou wax lañ mag ci commentaire yi